asalaamaaleykum pour ñi nga xam ne jotuñoo lire rapport boobu ñuy wax màggal ci contexte Covid 19. Euh, ginnaaw bi ñu publier rapport bi ba presse bi jël ci ay xaaj publier ko euh, te xëy na dëppwut ak ñoom liñ doon wax ku lire la rapport bi ñoom indi nañ ci ay précision moo tax ñu ne lenn ci presse bi. dafa génne ci revue de ci seeni la une le 30 août 2020 ñu daal di bind ne ay gëstukat nee nañ dañuy sàkku kenn ku ne màggale sa kër ba tax loolu indi fi ay réaction ak i laaj groupe gëstukat yooyu nga xam ne ñoom lañuy wax ñoo ñëw di indi ay leeral ci publication boobu bi ci njëkk mooy document bi nga xam ne moo tax article bi génn moom li ko taxoon a jóg mooy ñiy organiser màggal Touba pour ñoom ñu contribuer ngir dimbale leen ci seen jëlu décision ci nan lañu organiser màggal gi bàyyiwaale xel li aju ci wàllu wér yaram ndax màggal gi dafa nekk loo xam ne àdduna bépp fi toog kon article bi loolu moo ko taxoon a jóg dimbale ñi nga xam ne ñooy organiser màggal nañ la ñuy màggal gi dëppoog li nga xam ne moom la docteur santaane mu nekk benn liggéeyu gëstu boo xam ne bu dëgër la boo xam dañ koo teg ci ay lay yu scientifique yoo xam dañ ko wutale chiffre ak lépp gëstu ko nga xam ne lañ ca jublu mooy nan lañu màggale événement bi nga xam ne moo gën a rëy ci Sénégal ak ci àdduna bi boole ko bàyyiwaale xel mbas mi fi mu toll document boobu nag tool na ci ñaar fukki page ak nàngam wàll yu bu ne wàll yu ne gëstu na ko lu jëm ci wàll googu defal ko communauté murit defal ko réewum Sénégal mépp ba njëkk ba mooy màggalug 2020 gi ak tolluwaay bi mu tollool ñaareel ba contribution bi nga xam ne xalif général des Mourides ak communauté Mouride def nañ ko ci xeexu mbas mi ñetteel ba tolluwaayu màggal ak jeexital yi nga xam ne màggal dana ko def ci wàllu diine ji wàllu économie bi wàllu infrastructure yi wàllu nit ñi ak mbooloo meeg politique bi ñeenteel ba mooy wàllu mbiru li jëm ci wàllu mbas ci biir màggal gi loolu tamit jàng nañ ko yee ci aju juróomeel ba nan lañu la li nga xam ne moo relation yi nga xam ne nekk na ci diggante màggal ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko ci wàllu économie muy li ñaan mesure de résilience au Covid 19 mesures yi nga xam ne doon nañ suqantiwaat économie bi ndax yeex gi mu yeexoon ak mbas mi mi ko laal loolu tamit jàng nañ ko équipe boobu nga xam ne ñoo doon def lii nag nga xam lu mat fukki gëstukat ci ay pàcc yu wuute bi ñu validé lii rapport boobu ci lañ ñëw joxal ko seen bopp Serigne Mountakha xalif général des Mourides alxamis 27 août 2020 jox ko jox ko tamit autorité yi nga xam ne ñooy organiser màggal gi Serigne Mountakha nag ak tolluwaayam fi mu toll ci wàllu baatin wàllu diine. wàllu xam-xam ñëpp xam nañ ko rafetlu na lool liggéey bu ñàkk solo bii ñu ko defal félicité nañ ci bu baax ñi nga xam ne ñooy organiser màggal gi tamit ñi nga xam ne document bi tamit ñoom jox nañ leen ko ñoom it rafetlu nañ liggéeyin wiñ liggéeyee document bii te teg ko ci xam-xam ak niñ ko doxale ndax ñoom nee nañ ñoom lañ ko defal communauté bépp lañ ko defal tab gëstu la boo xam ñoom la waroon ñaareelu leeral bi ci mat a wax mooy rapport bi ñaari anam la gëstu ci ni ñu war a màggale màggal ñaari anam daal ci la ko gëstu bu njëkk bi mooy màggal goo xam ne kenn ku ne dangay màggale sa kër wala ñaareel bi ñu màggale nañ daa màggale nit ñëpp ñëw benn bu ne nag bu amee andi na ca xalaatam nga xam ne indi na ay mesures yu fort yoo xam ne ni ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu nu ñu sensibiliser nit ñi bañ respecter gestes barrières yi kenn ku ne nooy mën a fexe ba aare say gan ci màggal gi yooyu yëpp indi nañ ci ay xalaat kon nga xam ne document bi dafa indi ñaari anam yëpp mesures yooyu nag. ñoom xaaj nañ ko ñetti xaaj bu njëkk bi mooy mesure yu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñaareel bi yan mesure ci wàllu communication wàllu doxaleen ak stratégie moom la ñu war a jël ñetteel ba nan lañ war a sensibiliser ak yan mesure lañu war a teg ci kaw terrain bi équipe boobu ñoo nga xam ñoo doon gëstu nag respecté nañ bu baax critères yi nga xam ne wàllu gëstu xam-xam moom la teg ci wàllu googu nga xam ne anam gu ne gu ci am moo xam màggale kenn ku ne màggale sa kër wala nit ñëpp ñëw màggal si benn bu ne joxe na ya ak la ca am ak jafe-jafe yañ ca mën a jànkonteel ak la koy saafara lii nag wuute naag lool article yi nga xam ne presse bi da koo génne wax ca lam ca bëgg wax xaaj leen li bàyyi leen yi publie ko ci presse bi loolu nag xamuñ lu tax ndax dafa mel ni ñoom dañoo ñëw rek daal di doyloo copier kole indi ay titre yu gàtt yoo xam ne ku ko liir rek faaw nga bëgg liir journal bi nga xam ne ñoom li njëkk a génne mooy ay xaaj ya leen neex lañ génne ci première anam gi nga xam ne mënees na koo màggale muy màggale sa kër te boobu ñun taxuñu woon a jóg nga xam ne contexte bi nga xam ne ñun moom lañ bind yëf yi dañoo génn contexte bi indi première anam bi nga xam ne dañ ne buñ ko màggalee nangam ak nangam nii lañ koy defee ñaareelu anam bi ñëpp màggale si Touba nii lañ koy defe nii lañu war a aaroo nii lañu war a sensibiliser ñoom ñu jël benn anam ba rek te waxuñ ne. yi nga xam ne ñun mottali nañ ko ci wax jooju ba mu leer ba mën a indi benn jaxase indiwuñ ko waaye la leen ca neex rek lañ indi ci presse bi fekk ñun ñaari anam yëpp lañ indi ñaari contexte yëpp mën naa am ci màggal Touba ndax Covid bi kenn ku ne màggale sa kër nangamu nangam lañ war a jël ci ay mesures wala ñun ñëpp ñëw màggal si bu boobaa nangam ak nangam lañ ko war a doxale ci ay mesures barrières communication ak ak lépp waaye nag ñoom la leen ca neex rek lañ jël. groupe bu gëstukat yooyu nga xam ne nag euh, ñoo def liggéey bi amul benn vocation ñaari anam yooyu mu indi yépp imposé ci benn bàyyi moroom ja moom dafa joxe xalaatam rek pour waa comité bi xool bu ci am bu ci bu ci yàlla dogaloon mu am nan lañ war a doxe ci wàllu stratégie ci wàllu communication ci wàllu sensibilisation ci wàllu mesure sanitaire ndax kat xam nañ ni xalif général ak kilifa yu murid yi ñu seq koog état bi ñoo am responsabilité wax ci ñaari anam yooyu ñu indi ci téere bi ban lañ ci war a màggale ñoom moom loolu moom ñoo ko yeyoo ndax boo demee ci biir rapport bi bind nañ fa lii may bëgg wax ñu ne ca dëgg-dëgg kilifa yi ak ñiy organiser màggal yi ñoom dong ñooy xool lay yi ñu indi fii ak analyse yi ñu indi fii ñoom ñooy xool ak bépp liberté lan la ci war a def génne ko muy doxalinu màggal gi ngir ñëpp mën a mucc ca biir rapport ba tamit ñu ne bu yàlla dogalee kilifa yi tamit gis ne ak lay yi ñu joxe yépp am nañ yeneen sabab yu tax ñu mën a woo murid yépp ci màggal Tuuba boobaa kon ganeen anam giñ tegoon boobaa mooy ñëw bu boobaa nag mesure d'accompagnement yii lañ leen tegal ak yoon wii buñ ci jaaree xëy na danañ am li ñu bëgg kon kon ñu xam ne liggéeyu gëstu boobu benn jumtukaay la woon dong bu tegu ci xam-xam buy leeralal ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation màggal gi pour anam gu ci am ci ñaari anam yi ñu mën a xam ne ñu doxee doxinu rafet ndax lu bari ci wàllu wér-gu-yaram nañ ca war a doxaleeg yoo xam yu am njariñ la pour organisation màggal gi proposé nañ leen ko ci biir rapport boobu loolu sax nag dafa yëmut ci màggal Tuubaa rek dem na ba ci gestion Covid bépp ci Sénégal nga xam ne dafa tombeek màggal gi waaye ëmbal na lu dul màggal gi kon daal ñu xam ni li ñu fi jotal leeral lenn la rek ci liggéey bu tegu ci xam-xam bu metti boo xam ay semaines yu bari jël na ko ci spécialiste ak i gëstukat yoo xam ne ni ñoo liggéey ba génne rapport bi tudde ko màggalu Touba 2020 ci contexte mbas mi yan jafe-jafe moo ci am yan mbir moo ci am ak lan moo ci suñu xalaat pour ñëpp mucc mu tegu ci yoon loolu na rapport bi loolu moo ko taxoon jóg wuuteeg loolu nag niñ ko vilipandé ci biir presse bi képp ku ko bëgg xool dëgg-dëgg boo duggee ci lien boobu danga ko mën a gis kon nag ñi ngi woo ñëpp ñu xaar la nga xam ne sëriñ Muntaxa dana ko joxe ndigal ci murit yëpp ci nan lañu màggale màggal gi moo xam bële anam la walla bii anam bu mu ci man di am rek ñun def nañu suñu gëstu ba yoon wii xëy na buñ ci jaaree ñëpp dinañ mucc te dañ ko màggal ci jàmm ñu ne nag décision buñ mën a jël buñ mën a jël ñi ngi ñaanal sëriñ Muntaxa suñ boroom barkeel ko may ko gudd fan ngir jàmmi si lislaam bépp jëf yi nga xam ne mi ngi koy jëf ci yi wuute tañ xam ko lool lépp mu koy def ngir réewum senegal mu ngi koy ñaan moom yàlla mi nga xam am kàttan mu aar Sénégal yépp ak doomu aadama yépp ci mbas mi nga xam ne daj na kapp àddina bi muy groupe Covid 19. bu gëstukat yi nag mu ngi amoon ci njiitul. docteur Cheikh Sokhna di directeur de recherche à de chef d'équipe à li l'IHU Marseille docteur Cheikh Gueye ku xam-xamam màcc ci wàllu dëkk ak ni ñu gérer ab dëkk baneen ba mooy sëñ Abdul Aziz Mbàkke moom sëñ Basiru Baara